jërë ngeen jef mbokk déglukat yi asalaamaaleykum benn waxtu mu mooy soo ko jot ci njolloon li gën a fës ci xibaar fas yéene ko faram fàccee bokk na ci nag mbir mu doy waar mi ngi gis fële ca Néma Diarère nekk ci commune bu Djibi Dione ndaw boo xam ne kat dañ ko doon liggéeyloo ci fi nga xam ne rek moom moo jëm ci toolu yi nga xam ne a def moo mun moo nekkoon ganuk El Hadji Ibrahima Gueye ci émission objection waaye ci Mbour xale yi am na keroog nag fële collectivité Diamniadio moom gis ñu seen bopp nañ ci déglu sax kenn ci ñoom di Samba Tine fas fas yéene faram-fàcc ci wàllu xibaar tey jii nag la ne bés bi njaglelee lépp loo xam ne jëm na ci wàllu xeex ak wàllu sibiru si nañ ci ànd ak docteur Doudou Sène moo nar si suñu ganu kër ci tal xibaar yi moom moo jiite programme national lutte contre le paludisme dem tamit ca Kaolack ànd ca ak Adja Awa Thiaw bu tamit li jëm ci wàllu mbas mi ak wàllu tàggat yaram rétro Josette Kali Assane Thioune moo nekk ci wàllu El Hadj Malick am na nag ci dëkk bi nga xam euh, bi di euh, Nema euh, Dianay Reer ndaw bi na fa ci dañ nga fekk nag mu faat ko ci condition yoo xam ne dafa doy waar lool dañ ci ànd ak kii di Ignace ni mel depuis altine ba léegi ñu ngi ko doon wër waaye nag démb lañ ko mujjee gis mu daal di faatu ci fi nga xamante ni moom mooy ci àll dëkk bi di Nema Dianay nekk ca commune Djibi Dione moom nag dañ ko fekk sax ñu daal ko suul ci ay anam yu doy waar ndaw bi nag fekk baax ci benn ci réew yi nekk ci sous-région moom mi nga xamante ni dañ ko fekk mu daal di faatu jàpp nañu ni bokk na ci ñi doon liggéey ci toolu yamba yi nga xamante ni fan yi ñu génn armée daf ko daal di yàq ñoom ñëpp ci zone ci ay opération de sécurisation yu mu amaloon ca département bu Bignona moom mi nga xamante ni ñu ngi ko doon wër depuis altine démb nag lañ ko mujjee gis ca boor yi ni mel waaye nag ci anam yi ko fekkee dafa doy waar ñi ko gis nag dañu fekk suul ko ci anam yu doy waa kan moo faat ndaw bi ni mel laaj bi nag ba léegi amagul tontu waaye nag ñi nga xamante ni ñoom ñooy mbokkam biñ ko gisee mujjee nañ ko génnee daal di ko suulaat ci anam yu gën a rafet moom mi bàyyeekoo ci benn ci réew yi nekk ci sous région bi bokk na ci ndaw yu bëri yi nga xamante ni dañuy liggéey ci toolu yàmba yi ñu jàpp ni bari na loolu ci boor yi ni mel tool yi nga xamante ni sax fan yi ñu génn armée ci ay opération de sécurisation yi mu amal ci boor yooyu jot naa yàq tool yooyu yenn ci ay bërëb yi nga xamante ni ay nit yu yore gànnaay di def naka sudul noonu foofu la ñu daan làqu armée daal di tas loolu lépp ci département bu Bignona Ziguinchor Ignace Ndeye Sud FM Ziguin Ignace Ndeye ñu wax ci nag la moo def nag ba saafara xëy ndaw yi loolu nag mën na jaar ci ñeenti yoon yoo xam ne ko buñ ci jaaree nag dina mun a yéwén loolu secrétaire général bu groupe initiative Afrique GIA moo ko xamle moom Pascal Peyrou tey jii moo nekkoon ganuk El Hadj Baye Omar Gueye ci émission objection ndax yu nekk ca Mbour nag ñoom dañoo jaaxle ba léegi lañ xamoon fële ci jam ñaar ñoom gisuñu seen bopp dajaloo nag ci ab kuréel bi ñu xam justice liñ bëgg rek moom mooy ñu génne lépp loo xam ne jëm na ci rapport yi jëm nag ci wàll bilan yi ñette nag ci wàllu immigration clandestine bi ndaw yi nag def nañ ab conférence de presse bu baax a baax wàllu politique gi ñu nag ci wàllu xëyu ndaw ñi Samba Tine moo yor seen ko ci micro Moustapha Sall ndaw yi génnoon ci 8 mars bi di wane seen mécontentement ñi nga xamante ni kettu espoir kese lañu amoon opportunité lañ soxla woon ñu nekkoon ay soutien de famille bàyyi fi ay famille dem wutali géej gi ñenn ñi dee des ci géej gi ñenn ñi ci biir géej gi la ñeen jàppee yóbbu leen en prison actuellement ils sont en train de pourrir en prison kenn waxul ci seen i sort kenn waxul ci seen i sort ñooñu nekkoon ay soutien de nekk ci biir Sénégal bi nga xamante ne am na pétrole am na gaz am na zircon Sénégal amul guerre amul génocide nga gis ay ndaw jël wutali géej loolu day wane ne lajj bi nga xamante ni état du Sénégal lajj ni ko ci politique bi nga xamante moom la moom la réservé woon à la jeunesse sénégalaise. léegi nag désormais nous la les jeunes du Sénégal particulièrement la jeunesse du département de Mbour dootuñu nangu ces hommes politiques soif de populisme et d'argent di mu am ay détournement mu am loo xamante ni dañ ko waroon jagleel ndaw ñi ñu koy détourner pour des fins personnelles parce que ndaje bee ñu woote woon ne ca ca sa centre ba. gis nañ ne loolu noonu du ndaw ñi nga xamante ñoom ñoo wàccoon sur le terrain di ñaxtu di wane seen mécontentement mais vous avez devant vous des jeunes conscients des jeunes responsables jeunes yi suñu waree jàng jàng nañ suñu waree am diplôme am nañ diplôme allez-y dans les rues ñaata jeune fii ngeen gis ñu jaay ay Orange Money ñaata jeune ngeen gis ñuy raxas ay oto ñaata jeune ngeen gis ñuy jaay ay ndox kon si vous avez cette leen wax ne jeune bu faya jeune yu fanayaa ngeen am c'est pas possible vous avez des et bëgg nañ liggéey mais former les nañu tàggat ndaw ñi ci li nga xamante ni moom mooy ëllëgu Sénégal parce que Mame Baye Niass doon na wax ne wax ma ban ndaw nga am ma wax la sa ëllëgu réew mais ban ndaw nga am ban réew en tout cas chaque instant ndaw ñi ñu ngi tàllal loxo li nga xamante mooy gouvernement du Sénégal te ñu xam ne liñ leen dénk ñu koy jox askan bi du yalwaan du lu ñuy sarax seen wareef la te obligation la à ce ñoom ñu def ko léegi nag duñ nangu nag les autorités du département muy am ay détournement de fonds ay détournement d' objectif ñu koy jël di ko paacoo seen i biir ak seen i mbokk ak seeni i am di jàmm duñ ko nangooti les jeunes du département pare nañ taxaw tem pour surveiller li nga xamante ne nii mooy fonds yi ak financement yi nga xamante ni mu ngi dugg ci département bi dinañ nekk ci kanam dinañ nekk ci ginnaaw dañ ko surveiller te dinañ ko publier képp koo xamante ne jot nga wala déposé nga wala jot nga wala jotoo dinañ ko publier dénoncé ko ñu wax ci tey ji lañ jagleel rek bés bi ñu xeex wàllu siburu fii ci biir Sénégal Sénégal nag ñi fi siburu xam na wàññeek waaye am ci koo xam dafa yëg ba léegi fu ci mel ni Tambacounda Kolda ak ne kat yëf yi dafa la lor wax ci dool tamit wàllu mbas bi nga xam ne dugg na ci bëgg-bëgg nag ku kilifa Sénégal yi mooy xeex siburu na nag ku nekk bay ci sa waar docteur Doudou Sène lay wuyoo ci micro Mame Diarra Da Silva tey jii boo demee ci zone foofu nag la sibiru bi gën a bare parce que li koy firndeel mooy tey jii ci seize millions de sénégalais mën naa ne presque neuf millions neuf cent trente huit mille yëpp en deux mille dix neuf pratiquement sibiru bi dafa fi njombe yu bëree bëri par contre boo demee tey ci boori sud Sénégal bi Kédougou Tambacounda treize pour cent population bi kese kese rek am nañu plus de deux cent quatre vingt onze mille huit cent quarante cinq cas de paludisme en deux mille vingt vingt bi ñu nekk nag dañoo gis nekk ci groupe bi xaw naa yokk tuuti li ko waral mën nañ ko jël ay facteurs yu bëri bi ci njëkk mooy taw bi bëri woon na mais tombé ak coronavirus bi nga xam ne dafa xawoon a àdduna bi yëpp ba activités yi ko war a déroulé mais également ci bi population bi ci tax na peut-être teel ñoo dem ci hôpital bi ba tax na li ñu amoon ci ay cas pratiquement mën naa ne yokk na ci lu jot fukki ci ay ay yi yu ko am ñi ci faatu nag heureusement que moom wàññeeku na wàññeeku na pratiquement mën naa ne ci li ñu amoon ci ay décès tolloon na ci pratiquement cent quatre vingt onze ren mais daaw ñu amoon pratiquement cent onze donc xaw naa yokk tuuti ba tax na donc euh, lii nag li ñu ko may mooy stratégie yi ñu déroulé ci biir campagne bi moo tax tey jii peut waroon na fee gën a yokk mais état jël na ay dispositions yi nga xam ne tey agent de santé yi dote nañ leen Euh, jumtuwaay yi nga xam ne mooy nécessaire mooy masques yi avec partenaires yi ñu appuyé plus de un million cinq cent mille masques yoo xam ne séddale nañ ko au niveau des structures de pour permettre agents yi ñu def correctement seen liggéey ca Kaolack tamit na ñëw ci wàllu sibiru si foofu tamit ñu gis ne nag ci euh, gox bi enregistré tool ci rek juróomi junni ak fanweer ñoo xam ne am na ñopp ci si atum Euh, li nga xam ne nag moom moo jëm nag ci wàllu nag euh, yooyu nekk loo xam tamit euh, am na fa solo lool ku nekk war nga ci xar tax na sax ba amoon ay consultation yu ko xamal nag ci wàllu structure yi dañ ci ànd kii di Adja Awa Thiaw ak juróomi junni ak fanweeri kaawu sibbiru yoo xamee ni si am nañ ko ci diwaan bi yépp ci atum 2020 jàngoro ji nga xamee ni si anofel moo koy joxe day deltu na gannaaw bu baax a baax ci biir Saalum ci ñaari at yu mujj yi ndeeteel itam wàññeeku na lool jóge ci fukk ak juróom-benn ci atum 2019 egsi ci juróom-benn ci atum 2020 cas yi nga xamee ni sii nekk nañu yu méttee itam deltu nañu gannaaw bu baax wante nag jàngoro ji dey ba tey daanaka dafa dajaloo ci fu benn ni district sanitaire bu Kaolack ndaxte kat ci juróomi junni ak fanweeri cas yi nekk ci diwaan bi moom moo féetewoo ñetti junni yi ak juróomi ak ñaar fukk ak juróom-ñett district bu Nioro topp ci ak junni ak juróom-ñett fukk ak juróom-benn gi Guinguinéo tollu ci ñaar téeméer ak ñaar fukk ak juróom Ndofane tëj mbir mi ak téeméer ak juróom-ñeent fukk ak benn ci ay cas performance yu am solo yooyu nag suñu ko defee dafa fekk ne rek ñi nekk autorité sanitaire yi waaye tam askan wi kenn ku ci nekk jonga sa loxo ci xeex bi nga xam ne si moom la ñuy xeex si buru tàmbalee ci lu mel ni ñépp di tëdd ci li nga xam ne moom moo nekk moustiquaire imprégné waaye itam ñuy wéy itam di ko séddaatle ba tey askan wi def liñ naan campagne chimio prévention paludisme saisonnier jagleel ko xale yi nga xamee ni si ñoo di soog a juddu ba am juróomi at ci district sanitaire bu Kaolack xamee ni si moom la ñuy fagaru jagleel ko jigéen ñu wérul yi teel a fajtal bépp cas boo xamee ni si seetlu nañ ko waaye itam mbootaay yi nga xamee ni si ñoo fi nekk di def ay yëngu-yëngu fu ñu toll di yeete ci li nga xam ne si kat moom moo nekk jàngoro ji loolu nag tax na autorité médicale yi daal ni day bu fekkee ne kenn ku ci nekk jónge ci sa loxo te ñuy wéy di dem ak rythme bi nga xamee si moom la ñu nekke at yii di ñëw day danañ mën a génne sibburu fi nga xam ne si moom moo nekk ci diwaan bi awa caw doon jokkoog yéen fii Saloum pour Sud ñu wax ci nag ñett ñi ñàkk seen euh, bakkan te ñeme ko dem ci wàllu mbas mi juróom mm, fukki nit ak euh, ñaar ñett am ci nag ko ci coronavirus euh, fanweer yi ak ñett yëpp nekk ci wàllante bi leer yi ak docteur El Hadji Mamadou Ndiaye mooy directeur de la prévention. ci junni ak ñeenti téeméer ak juróom fukk ak ñaari test yi ñu def juróom fukk ak ñett ñoo ci positif ci positif yooyu am nañ ci fukki cas contact. mooy ñi nga xam ne jot nañ ci mbas mi fekk dañoo jaxaso woon ak ñore doomu jàngoro ji amuñ ci benn cas bu jóg bu jógee bitim réew maanaam importé waaye am nañ ci ñeent fukk ak ñett ñu tuddee cas communautaire mooy ñi jox ci mbas mi fekk xamuñu fi ñu ko jëlee wala ki leen ko ñoo ñu seen lim ni la tëddee ci ndakaaru ak li ko wër am nañ ci fanweer ak juróom-ñett yu tëddee nii juróom-ñeent ci port ñeent ci mariste ak géejawaay ñett ci jam jamñaajo ñaar ci Ouest Foire ak Mamel benn ci Dakar Plateau ñaari tali jëppal Point E Liberté 4 Liberté 6 Ngor Cambérène Amokat Cité Aliou Sow Kër Massar Pikine Rufisque ak Sangalkam ci région yi am nañ ci juróomi cas nii ñaar ci Thiès benn ci Mbour ak Ziguinchor ñeent fukk ak juróom benn si malade yu entré woon hôpital wér nañu bés ni ki tey dinañu génn bu si yàllaande fukk ak benn malade ñoo nekk réanimation ñett malade ñàkk seen bakkan bu su démb gaaw ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru avril mi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ak malade yi ñu topp ci biir kër yi ñu ngi am tan bësu tey dalee ko ci kaw bu njëkk ba Sénégal wëññi na ñeent fukki junni ak téeméer ak fanweer ak juróomi kaa ñi xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu fanweeri junni ak juróom-ñett ak juróom téeméer ak juróom-benn fukk ak benn wér nañ ci junni ak téeméer ak ñaar ñoo ñàkk seen bakkan mu des téeméer ak juróom-ñaar fukk ak benn si lalu hôpital yi ak malade yi nga xam ne ñu ngi leen topp ci biir kër yi bi campagne vaccination bi dooree ba léegi ñu jot a ci biir réew ñu ngi toll ci ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñetti junni yu toftal juróom-ñeent téeméer ak ñeent fukk ak benn si réew mi yépp ñu wax ci lu jëm nag ci wàllu expérimentation ci tibb euh, engrais bu xam ne ko tuddee nag microdose euh, ci cinq gox yi nekk nag foofu ci Sénégal résultat yi nag nekk na loo xam ne am na solo trop loolu nañu ko doon xam ne fële ci diwaanu cees dañ ci ànd ak di Babacar Ndaw ñu duppee ko microdose muy xeetu engrais bu bees boo xamante ne du am jeexital si wàllu suuf bi waaye dina yokk koomum suñu mbokk baykat yi ak kuréel gi di dundal suuf rafetlu expérimentation si nawet bi ñu génn soxna Nogoy Ndiaye coordonnatrice dundal suuf si zone des Niayes. ci rendement yi ñu présenté yëpp technologie microdose bi moo ëpp rendement par rapport ak beneen pratique bi nga xamante ni baykat bi moom la doon faral di def. ci wàllum tamit dépense bi producteur bi doon ci toolam gis nañ ne day wàññeeku lu bëri. résultat yu mucc ayib ci zone des Niayes bu ñu sukkandikoo ci kilifa gi ñu dénk ANCAR Niayes madame Ndiaye Binta Mbaye ku nekk xam ni ni suuf yi léegi dafa néew doole donc il faut ñu apporter ay technologies yoo xam ne di nga am rendement bu baax mais aussi di nga sakkanal sa poche parce que engrais tamit cher la mais ak technologie microdose quantité yu ndaw ngay jël def ko ci plan bi mu nekk quantité bi muy soxla exactement donc du nekk yàq économie lay doon résultat yi yu am solo la def microdose bi ñoo dominer en terme de rendement. li wane na jéego boo xamante ni Sénégal mi ngi koy wéyal si wàllu mbayub dër bi bu ñu nemmeeku ne tey jii des na ko war a gën a ñoŋal loolu di gis-gisu Arona Diop njiitalu Proso. ñu ngi soog def benn at incha allah at yii di ñëw muy déwén ak bon muy ren campagne bi ñu ne ak déwén incha allah dinañ defaat ay phase pilote. li ci am solo mooy li ñuy li ñuy xalaat nga xam ni moom lañu ñu liggéey comme technologie mu law ci suñu membre yëpp ñun loolu moom moom la ñuy visé te incha allah rabbi nañu def suñu kenn lay kàttan. bu ñu sukkandikoo si Koumbel soo fekk baax si commune bu na si région bu Louga ñoom de tey jii sawar nañu ngir wéyal ko si seen yeneen mbokk producteurs yi. yokk kànja bi sax ñu defaat foofu leneen ci la gën a gis rendement bi parce que gis nañu ba tey jii nii sable bi nga xam ne moom lañ def fi kànja bi nekkoon soo ñëwee da xam ne fii la defee woon affaire bi niroowul ak moom lii di jéego yu bees si wàllu mbay mi si Sénégal ba tax na producteur yi wanewaat beneen xar kanam ngir tey ji jëmale mbayub Sénégal si kanam Babacar Ndaw Thiès su FM. Babacar Ndaw Thiès ci tënk rek ci xibaar tàggat yaram li nga xam ne rek mooy lakk gi nga xam ne nag hôpital ab hôpital lakk na ko fële de ca Irak nag ñi mu ngi gën di jéggi doy ba léegi ñuy jàpp ne nag euh, bilan bi mu gën di wéy tar ba léegi tey jii nag juróom fukki nit ak juróom-ñett ñoo ñàkk seen bakkan ci bilan mu mujj bi nga xam ne nag AFP moo ko xamle ba tax na sax ba ñu nag euh, suspendre ministre bi ñu dénk wàllu euh, paj gi. war ci ubbi ab enquête euh, ca fële ci Azerbaïdjan nag politique intellectuelle simple citoyen daan na nag euh, ñaawlu bu baax a baax li nga xam ne rek moom mooy kàddu président bu américain bi di Joe Biden population bi nag ñoom kat leen dafa am loo xam da leen métti loolu mooy kàddu yi mu yëkkati conflit territorial bi nga xam ne nag wàllu doon soviétique nag moo fa am kàddu yooyu moom mook ko yëkkati nag euh, kii nga xam moo nekk Joe Biden bu nag président bu Amérique. Euh, ci tënk ci wàllu tàggat yaram ak tamit li nga xam ne rek moom moo jëm ci wàllu match yi am fi mu toll nii ca France lañ ko doore ak tamit lu jëm ci wàllu 34e journée bi fi mu toll nii sax Nice gagné na euh, ñetti bal ci benn waxtu bi xam ne fi mu toll nii Strasbourg ak Nantes zéro bi partout la Lorient Bordeaux zéro bi partout Dijon moo jitoogum ren benn bal ci dara Lens Nîmes zéro bi partout la Angers moo war a jëg Monaco si kanam match bi ñëpp xaar na diggante Lyon ak Lille lay doon si kanam tuuti 19 heures ca Angleterre lu jëm nag ci wàllu 33e journée bi Wolverhampton mooy dëgg ak Burnley gagné na ko 4 à 0 fi mu toll nii Leeds United ak euh, ak euh, Manchester United zéro bi partout la 19h Aston Villa mooy sëgg ak West Bromwich ca Espagne la ñuy dem ak tamit li nga xam moom moo jëm ci yenn match yi te am na nag Atlético Bilbao ak Atlético Madrid Celta Vigo Osasuna waaye tamit euh, équipe bi nga xam moo nekk Villarreal war a sëgg FC Barcelone FC Séville war a sëgg équipe bi nga xam ak juróom moo toftalu ci benn waxtu ñu ànd ak. suñu gàllankoor di Doudou Sène moom moo jiite nag soo Doudou Sène moo jiite programme national lutte contre le paludisme seq waxtaan ak soxna Mame Diarra Da Silva. docteur Doudou Sène ngay coordonnateur PNLP muy programme national de lutte contre le paludisme ndax mën nga ñu wax docteur tolluwaayu sibiru fii ci mim réew. waaw di di leen ziare di mbokk auditeurs yëpp di leen ñaanal kóor jàmm. boo xoolee tey Sénégal ñetti pàcc lañ koy xaaj. pàcc boo xam ne tey jii am nañ yaakaar ne fii biir bu gàtt si nguur gi na fa daj ba ilaa yomb ci ak diggante boo xam ne ñu ngi nekk ci diggante ñaare ñetteel bi mooy que boo jëlee junni nit tey juróomi nit rek ñoo ngi ci am si bi kon ak moom la ñuy wax zone verte mooy Matam Louga Saint-Louis ak euh, lu mel ni euh, Ziguinchor ak une partie de Dakar de Thiès ak de Louga tey boo jëlee zone bi nga xam ne mooy mboq bi mooy boo amee tey junni nit at bu nekk juróomi fukki ak ci am sibiru loolu ñu ngi koy tënk ci réseau yi nekk ñu ngi nekk Kaolack Diourbel ak une partie de disons boori Ziguinchor mooy région de Sédhiou tey jii boo demee ci zone Tamba Kédougou Kolda foofu nag la sibiru bi gën a gën a bare parce que li koy firndeel mooy tey jii ci seize millions de sénégalais mën naa ne presque neuf millions neuf cent trente-huit mille yëpp en deux mille dix-neuf pratiquement sibiru bi dafa fi ndombe yu bare bare par contre boo demee tey ci ci boor yi sud Sénégal bi Kédougou Tambacounda treize pour cent population bi kese kese rek am nañu plus de deux cent quatre vingt onze mille huit cent quarante cinq cas de paludisme deux mille ñu nekk nag dañoo gis ne sibiru bi xaw naa yokk tuuti li ko waral mën nañ ko jël ay facteurs yu bëri bi ci njëkk mooy taw bi bëri woon na mais tombé ak coronavirus bi nga xam ne dafa xawoon a lëmbay àdduna bi yëpp ba activités yi ko war a mais également tiit bi population bi tiit tax na peut-être teel la ñoo dem ci li ñu amoon ci ay cas mun naa ne na ci lu jot fukki junni ay ay cas yu ko am ñi ci faatu nag heureusement que moom wàññeeku wàññeeku na pratiquement mun naa ne de plus de ci li amoon ci ay décès tolloon na ci pratiquement cent quatre-vingt-onze ren mais daaw ñu amoon pratiquement cent onze donc xaw naa yokk tuuti ba tax na donc Euh, lii nag li ñu ko may mooy stratégie yi ñu jëlule ci biir campagne bi moo tax tey jii peut-être waroon na fee gën a yokk mais état jël na ay dispositions yi nga xam ne tey agent de santé yi doté nañ leen jumtuwaay yi nga xam ne mooy nécessaire mooy masque yi avec partenaires yi ñu appuyé muy Fonds mondial ak euh, GIZ euh, ak waa Banque islamique de développement plus de un million cinq cent mille masques yoo xam ne séddale nañ ko au niveau des structures de santé pour permettre agent yi ñu def correctement seen liggéey li ci des mooy campagne d' aspersion intradomiciliaire mooy pompe yi ñuy pompe ci biir kër yi def nañ ko Kédougou Tamba ak Kolda mais également boo demee ci bët kànnaaru Sénégal campagne bi ñuy wax chimio prévention saisonnière muy CPS boo xam ne doom yi jox xale yi nga xam ne dañu am ñetti weer ci at loolu permettre nañ tamit déroulé nañ ko correctement loolu moo ñu may tey jii chiffre bi tey jii bu naroon nekk plus de cinq cent mille. bu fekkee contexte Covid bi ñu mën koo contenir correctement. perspective Sénégal dafa war a dem ci sawagal si buru définitivement loolu nag li ñu koy mën a may mooy encore mobilisation bi ñu war a defar ci wàllu koppar mais mobiliser yeneen secteurs yi parce que santé à moom kese mënu ko éliminer mais également dañuy remercier communauté bi mais communauté bi am nañu un fort engagement muy bàjjatu gox bi muy association yi ci quartier yi mais également dañu bëggoon rappeler que ne fële ci Kédougou moo ëpp sibiru ci Sénégal te pourtant fa la société la société yooyu ñu gën a jàppat liggéey bi am na lu ñuy def nag ñoom mais duñ ko faral di capitaliser en tant que partenaire direct mais li bëggoon rek ren à partir de cinq ans yi di ñëw ñoom ñu gën see jàpp pour que Sénégal mën a éliminer bal bi te pour nga mën ko éliminer il faut ñu fay lakk ba rek Kédougou Tamba ak Kolda ba mu sedd guy ñu mën a espérer que 2030 Sénégal dina tàggoo ak sibiru définitif. waaw ren jii nag lan ngeen fas yéene waxtaane ren fan la ñu war a tegaat suñu tànk mooy que ne li nga xam ne mooy am nañ ko ci ay jéego yu ñu jot def dañuy fexe ba bañ a delluwaat ginnaaw fexe ba lii di bët gànnaaru Sénégal te fépp foo xam ne tey jii mën nañ la considérer comme zone verte nga xam ne am nañ yaakaar ne sibiru bi kat mën nañ ko faagaagal ci ci at yi ci ñëw dañuy def suñu kéemtalaay kattan ba continuer stratégie yi mais également dugal ay stratégie yu bees tey jii état du Sénégal jënd na ay trente appareils yoo xam ne excessivement cher yoo xam ne ultra sensible paludisme lu mu tuuti tuuti si sa biir yaram même boo yëgul dara buñ la defalee test bu sa yaram tàngee moom buñ la defalee test bu nekkee am nga benn doomu jàngoro ci biir rek dina ko gis loolu tey jii acquérir nañ ko grâce également à la collaboration bi ñuy am ak universitaires yi bi ci des mooy gën a def attention ci Covid bi parce que Covid bi tant que dafay freiner liggéey bi ba tax a nekk un pays émergence sans jërëjëf docteur euh, Doudou di fàttali ne jiite euh, programme national leen jàmm ci jotaay bi fësal xibaar yi gënoon a am solo benn ci ayu bés ci Sud FM. jaamaarloo yu metti yi amoon te ruusee ci mbirub Ousmane Sonko Adji Sarr yëngaloon réew mi ngiitum réew mi di ci àddu rafetlu ko benn yoon di woo sénégalais yi ngir ñu gëna a suuxalaat lépp lu jëm ci doxalin gu rafet ñu teewlu ko. ko surtout xalam ñëwul xalaat ne di nga dem attaqué gendarme di yàq ñu taal seen jàng comme ça vraiment loolu jàll na te loolu mënu ko am a a xam am boobu ci ko nekk bu nga topp ci li ngay def nga métti sur lool nag dañu delloo ci xel yi te xam ne réew mi kenn du ko yàq xam nga dara moo ko njiitum réew mi Macky Sall mu ngi àddu alxames ginnaaw ba mu validé ba noppi programme d'urgence bi ñeel wàllum xëyub ndaw ñi sàkku na it ci gouvernement bi ñu motal bile programme gën kaa sori ci fanweeri fan ci weeru avril gii ñu ne Babacar Somb. njiitu réew daal dina sàkku ci jëwriñ ji ñu dénk wàllum formation professionnelle mu daal di lëkkaloo ak jëwriñ ji ñu dénk wàllum finance ak lii di économie ñu daal di wéyal lii di tabaxub centre de formation yi ci bépp département lii di budget jëm ci déggoo war a dox diggante groupe Sénégal ak lii di employeurs yi boobu le budget daal dinañ koy yóbbu ci lu toll ci fukki milliards ak juróom at bu ne njiitu réew mi Macky Sall di xamle itam ni lii di ay pôle emploi dinañ ko daal di samp ci bépp département jëriñ ju ñu dénk wàllum ndaw ñi njiitu réew mi di sàkku ci moom ñu daal di taxawal ci nu mu gën a gaawee lii di kër yi nga xamante ni moom lañ daal di jagleel ndaw ñi ak wàllum citoyenneté ba tax na ci at mile juróom-ñetti kër dinañ ko daal di tàmbali jëriñ yi nga xamante ni ñoom lañ daal di dénk wàllum koom emploi ak itam jeunesse si seen lëkkaloo ak secretaire général bu présidence war nañoo proposer itam benn cadre de gouvernance ci ba muy tëj njiitu réew mi di xamle ni lii di budget bu conseil national de la jeunesse daal dina koy yóbbu ci juróom fukki million si suñu koppar. alxames gi ci guddi la ñu sakat sakatee mairie bu njaareem limaamulaay ca géejewaay ab manifestation goo xamante ni ndaw yu bàyyeekoo ci quartier Daaru Nayib ñoo ko amal li ñuy ñaawlu moo di li ñu bëgg a tabax ab forage ci seen terrain de football El Hadji Moussa Thiam. tàngoon na gépp foofee ca commune njaareem limaamulaay gannaaw nag boo ay ndaw yi nga xam ni ñu ngi soxeekoo ci quartier Daaru Nayib ñëwoon nag di daal di daal cëkkatoo li nga xam ni moo di mairie bi pare-brise oto maire di sëy bi nga xam ne dañ ko gaare woon ci biir ñoom yàqoon na yàq xeetu daw yooyu sax yemuñu si dañoo génn nag di li nga xam moo di mairie bi lee lu xam ni moo di benn espace yi fa la ñuy tàggatoo te daanaka buñ ko xaymaa toll na si junni ak juróomi téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn mètre carré te si kaw espace boobee nag projet KMS 3 na mën a fa amal benn château d'eau rek ngir xeex li jëm si ñàkkum ndox mu tar mi rek te yittewoo lu toll ni ñetti junni mètre carré ci suuf si lee techniciens yi sax yi fa ñëwoon di natt ni ki mel ak ndaw jàpp nañ ni daal ñooñee li ñu soxla woon pour tabax château d'eau boobee nag dañ ko yokk ba ñooñee nag taxaw tembe daal ni li nga xam ne nag moo di sax travaux yi du fa doree si lañ nag daal di daal renforcer li nga xam ni moo jëm ci wàllu takk der yi loole sax gën a nag merloon ndaw yi nga xam ne nag daanaka ñoomee ñoo ngi soupçonné daal dafa am lu ciy ñuul ci li jëm ci wàllu nu ñuy dimensionné terrain bi ñoom sax ñoo ngi joxoñ baaraamu tuuma mairie bi ni daal moo ngi fay jaay ay terrain ci bët saalumu réew mi ci lu ñeel mbiru Boffa Bayotte ñaar fukk ak juróomi nit yiñ ci topp niñ ko xamle woon def nañ ko tàmbali nañu ci altine gi ab xiifal li ñuy sàkku moo di ñu ubbi ab procès ginnaaw ñett ci ay at goo xamante ni ñu ngi leen a tëj Ignace Ndeye ñi nga xamante ni ñoom ñooy seen njaboot yi ñëwoon ah, pour ah, daal leen dimbale solidariser ak ñoom régisseur prison bi daal di daje ak ñoom ah, pour ñaax leen ñu convaincre ñi nga xamante ni ñoom ñooy seen mbokk yi nekk ci kaso bi ñu bàyyi xiifal boobu njaboot yi nag nee li ñu mel duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg Mame Diarra Sané di doomu chef de village Toubacouta bi nga xamante moom ci boppam sax ci biir kaso bi la daal di fàttu woon métti na ak ñu jàpp loolu la ñu jàpp parce que ku ñu téye trois ans sans jugement sans wax la li nga def xamoo bopp xamoo génn dafa metti torop man sama papa foofu lañ ko téye ba mu gaañu ñu indi ñu niw bi ñoo jox ñu ko léeg-léeg boo ñëwee pour am kayit pour visite sax problème la fàttaliwu nag ñu ngi toll ci ñaar fukk ak juróomi nit yi nga xamante ni ñoom la ñu teg loxo ginnaaw fitna bi amoon ci àll bi nekk boo Boffa Bayotte te ñu jàpp ni fukki nit ak ñeent ñoo ci faatu woon ñaar fukki nit ak juróom yooyu ñu tuumal ñu ngi leen tëj ci kaso bi lu ëpp ñetti at a ngi nii ci àllarba gi yemo ak ñaari fan ginnaaw seen xiifal googe ñaar fukk ak juróomi prévenu yi ñoo dakkal seen grève de la faim googe ginnaaw ba ñu dajewee ak juge d'instruction bi nga xamante ni moo yore léegi dossier bi ñu fàttali leen ni ñaar fukk ak juróomi nit ñooñee ñu leen di topp ci mbiru Boffa Bayotte gi ñoo tàmbali woon gile xiifal ngir laajte ñu àtte leen wala sax ñu jox leen ay bàyyub nëgandiku garab gu bon gi ñu teg loxo ca Padoua ñeenti ci nit yu ñu ci jàppoon placé nañ leen su mandat de dépôt fi mu ne nii ña nga ca prison bu Cap Manuel liñ leen di toppee moo di booloo def ñaw ñaawteef wala def ci xotu gerte dundu nit ak blanchiment de capitaux lu ci mënti am seeni avocat ngi yaakaar ñu am ci non lieu fi mu ne nii bépp nit buy liggéeyee ci wàllum wérgu yaram te bañ a dem servir ci biir réew mi ay daan yu métti ñu ngi ko siy xaar autorité yi ci wàllum wérgu yaram taxaw nañu temb ngir matal lu ni mel te it ñu ngi xalaat nu ñuy def ba gën a dolli daan yi ñu teewlu Ousmane Dia di directeur des établissements publics de santé. kilifa bi wax la ko waxaat ko ndaxte boo xoolee euh, jamono yu njëkk yi amoon na loo xam dañ koy tuddee engagement quinquennal wala engagement décennal yi xam ne nit ki bu wala mu signer euh, état au yëgal ne danaa toog juróomi ak wala fukki ak yoo xam ne dinaa liggéeyal état bi fu mu munti woo Sénégal benn du benn kii te képp koo xam ne yaa ngi dund Sénégal ak foo munti toll foo munti nekk li ñu yi di am Dakar amaana boo munul am lu toll ni moom nga am loo xam ne dina tax doo jéggaale di jóge benn région di dem beneen région léegi nag dogal yu bëre dinañ ko jël parce que fu mu nekk ni tàmbali nañ waxtaan bi ak directeur ressources humaines ak sama directeur général pour que ñun fii wala semaine bii di ñëw dinañ teg ci kaw table suñu kilifa monsieur le ministre ay incantation yoo xam ne moom dina mën jël ay dogal ne léegi képp ki nga xam ne fu mu nekk nii jël wax nañ la nga jël service jëloo service wala nga bañ a jël service dina am ay daan yu ñuy teg sa kaw te daan yooyu du yem ci ñun dana dem ba ministère des finances et du budget njiitum réewum Tchad di Idriss Déby génn na àdduna ci talaata gi ginnaaw ay gaañu gaañu yu mu amoon ci ay jaamarloo mu yemoo ak benn fan bi biñ ko tabaatee ngir mu jiitewaat réewum Tchad ci juróom-benneelu mandaam moom mi nga xamante ni mu nga fa woon daanaka fanweeri at a leeral yi ak Ndeye Marieme Ndiaye. kii nga xam ne moom mooy Idriss Déby it noo ci atum 1952 la gane àddina fa li nga xam ne moom mooy ca Bermuda moom dafa jàng lu ñuy tuddee aéronautique mu bokk ci ñi nga xam ne dañoo àndul woon ak dee li ko dalee atum 1980 jàpp comme nag bokkuñu woon gis-gis noonu la jógee foofu nga xam ne moom mooy ca Tchad dem daal di taxawal ab mouvement patriotique du salut ci mouvement boobu sax la sukkandiku ngir jëlee nag ca bopp réew ma ki nga xam ne de moom mooy Hissène Habré ci atum ci noonu la ko tabbee mu nekk njiitu réew ci atum 1996 ci 2001 2006 2011 ci weeru août bi ñu jógee nale la def boppam li ñuy tuddee maréchal ba ñu yëgalee nag génnub àddinaam gouvernement bi ak assemblée nationale bi dañu ko tas léegi sax ma Mahamat Idriss Déby nekk benn ci ay doomam te mu am ci lu tolloog fanweeri at ak juróom-ñaar nekk commandant en second des armées tchadiennes moom la ñu daal di tabb mu jiite conseil militaire de transition. ci wàllum tàggat yaram football coupe jaraaf bu ndakaaru qualifié ci quart de finale yi ginnaaw ba mu amee ndam benn bal ci dara digganteem ak étoile sportive du Sahel bu Tunisie jaraaf dina dem ca Tunisie ci àllarba gi ngir jongante fa ak club sportif Sfaxien ñaari équipe yi nag li ñu nar a xëccoo moo di place bu njëkk bi ci groupe C bi. fii la ñuy ndar képpee jotaayu xibaar yi gënoon a am solo benn ci ayu bés fi ci Sud FM seen rajo dig daje dibéer bi di ñëw. El Hadj Malick fanweer simili moom moo toftalu ci benn waxtu nag meen ci wàllu xibaar na la njëkk Enes Ndeye ci li nga xam xew fële nag ci Ziguinchor ci Djibi foofu nag ab ndaw boo xam ne liggéey toolu yàmbaay ci wàllu Afrique wax yoon yi war a mën a jaar bu lijjanti xëy ndaw yi demoon nañ tamit ca ak Moustapha Sall ndaw yi nag bëgg ñu lépp loo xam dem na ci wàllu immigration clandestine bi sant di tey ji itam mu lay bés bi njaglewoon lépp lu na nañ ci ak docteur euh, euh, du Doudou Sène moom moo nekkoon ganu culture xibaar dem ci Kaolack ànd ci ak Adja Awa Thiaw ñu ngi yéen itam ci wàllu tolluwaay mbas mi ci tey jii nii di sant di gërëm baax asan Thioune mi nekkoon ci wàllu xarala gi ci kàddu gi El Hadj Malick Ndiaye wàllu rétro bi ak Josette Biagi Kali jaa jëf wasalaam jox xibaar yu gaaw te dëgg bu diir ndakaaru fekk ñun weesu nañu leen Sud moo leen di tàj ci xolu Sénégal